ba léegi koor fi ko yàlla teg ci lañu nekk di wax maanaam yonent bi ay waxam dégg la laaj xam nga léeg-léeg nga dégg nit di wax ne man de kay moom yow ma xiyaam su ma gisee sëñ Xaadim Sekk rek day na moom kay yal ko fa gis waaw su ma ko fa gisee kay li ma bëgg dinaa ko am léeg-léeg nga nit dégg-dégg nit di wax loolu te yeneen bi nee na jaamu yàlla yëpp nit ki mën na koo fayeku te du jàkkaarloog boroomam du teew ci kanamam ba mu mooy koor koor moom yàlla nee na moo ko moom te moo la koy fay kon li muy tekki mooy dangay dem ci sa kanam boroom mu fay la koor kon bu dara nekkuloon ci koor lu dul nga di ci am audience yu dem ba ci jàkkaarloog sa boroom mu fayal la boppam ci koor rek jar na ngay wor ba dee bari waa na lu nit di daw nag di dang-dang yi di ko adressé ne man di bu ma ko seen bàyyi diw rek yow man xiyam amut problème waaye ma di leen xamal ne koor moom ku ko def si ni ko yàlla santaane ngir gëm yàlla ak topp ndigalam ah, boo génnee àddina sa boroom ci boppam ngay jàkkaar lool ndax sag pay kenn doyu ko ci moom ci boppam boppam moo ko ca doy loolu da nga koy dégg ci hadiis bi léegi nag ju maanaam waroo tegale wi ni wax yi am ci hadiis bi loolu la ñu nettali imaamul Buxaari yi addis biñ jàngoon démb moo ko nettali waaye indiwaat beneen nettli boo xam ne da caa wax ne yatruku taamahu wa sharaabahu wa sha'watahu min ajli waaw ba mu ne asawmu lii ana ajsibi da caa teg baat boobu da caa teg ne yatruku taamahu wa sharaabahu wa sha'watahu min ajli kon asiyaamu lii wa ana ajsi bi'i wal hasanatu bi ashri amsaliha am na addis boo xam ne nee ma njëkkoon a waxi démb na la waxe waaye ba ñëwee ba egsi ci asiyaamu lii wa ana ajsi bihi ba koy laata wax daf ne yatruku taamahu wa sharaabahu wa sha'watahu min ajli yàlla dafa wax ne ku dafa bàyyi aw ñamam bàyyi ak naanam bàyyi baneexam ci wàllu sëy ngir sama jëmm man yàlla kon nag ginnaaw sama jëmm ak topp moo tax mu def loolu man itam ma nangul naa ko kooram moomale naa ko it jaamu yàlla gi ne maa ko moom te man maa koy fay ñu ne yàlla noo koy fayee mu ne wal xasanatu bi am amsaaliha wal xasanatu bi ashri amsaaliha nag niñ ko déggee ak ni ko yonent bi jubloo di benn maanaam yonent bi moom dafa wax ne xasana bu nekk yàlla da koy ful fukki kemam fukki kemam waaye fukki kem yooyu mu wax dana ko leeralaat ci kenam ba mu yudaaf lahu jooju yàlla wax ci alquran ba léegi addis biñ jàngoon démb muy asiyaamu lii waana asi bihi boo demee ci imam muslim dafa wax ne kullu amali ibni aadama yudaafu alxasanatu bi ashri amsaliha ila sabi miati dafin qala taala illa sawma fa inna uli wa ana ajsi bi'i yada'u sha'watahu wa ta'amahu min ajli li sa'imi far'atani far'atun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi wa la xuluufu fammi sa'imi atyabu inda allahi min ri'il misk boo demee ci waxi imam muslim moom dafa wax ne mboolem jëfi doom aadama danañ ko ful benn tuyaaba bu nekk ñu ful ko fukki yoon léegi nag ful yooyee dañu koy continuer di ko ful ba mu nekk sab umi ati dixin juróom-ñaar téeméeri ful loolu nag kenn na nu mu yem ndax ni ko nit bi waxee mooy jëf ju baax ji nga def yàlla da koy ful ni mu koy fule mooy benn tuyaaba jël ful ko fukk muy fukki tuyaaba waaw neel benn ful benn ful a noonu mu jël fukki tuyaaba yooyu ful ko fukk muy téeméeri tuyaaba neel ñaari ful a noonu mu jël téeméeri tuyaaba yooyu ful ko fukk muy junniy tuyaaba di ñetti ful mu jël junniy tuyaaba yooyu ful ko fukk muy fukki junni tiyaaba muy ñeenteeli ful noonu la koy fule nag par benn ful par ñaari ful par ñetti ful par ñeenti ful ba ci sàpp umi ati di fin loolu ay milliards yi milliards yi kenn xamut nu muy yem la te noonu la ko nit bi waxee te nit ñi seetluwuñ ko maanaam boo defee benn dama koy multiplier muy muy première multiplication ma jël dix yooyu multiplier ko dix muy deuxième multiplication ma jël multiplier boobee di di di cent multiplier ko multiplier ko dix muy troisième multiplication di mille ma jël mille tamit multiplier ko dix mu di dix mille di quatrième multiplication noonu nag may multiplier di wàññi par benn par ñaar par jafu par jafu par jafu par jafu par jafu ba def ko ba juróom-ñaari téeméeri yoon euh, ma door ko bay loolu la yeneen bi wax hasanatun bi ashri amsaliha yudaafu yudaafu yudaafu yudaafu ila sab'i mi'ati dafin noonu la ko jàngalee ñu ne ah, loolu da xanaa war naa loolu moom bu yàlla defaree jàmm bi xanaa yàlla ne déet woor bokku ci yeneen jëf laay jël benn jëf ful ko fukk jël fukk ya ful ko fukk muy téeméer ma jël téeméer ya ful ko fukk muy junni ma topp nag di ko ful di fulaat di ko ful di fulaat ba ful ko juróom ñaari téeméeri yoon ma dal ko bàyyi mu ne ah déet koor bokku ci koor moom maa ko moom te maa koy fay kon mooy la muy fay ci koor na mu toll moo moo fulandi fuuf li muy fay ci yeneen yi ci des moo tax mu ne illa sawma nda rek koor fa innahu lii wa ana ajsidihi koor moom man maa ko moom ndax ma tax boo jàmb di ko def kon maa fay yàlla noo koy fay am hmm, loolu moom du ngeen ko mën a xam waaw yeneen yeneen jëf daal dama ko multiplier benn dip benn fukk fukk téeméer téeméeri junni junni fukki junni fukki junni téeméeri junni téeméeri junni noonu ba ba ma def ko juróom ñaari téeméer yoon waaw waa mooy yooyu mooy mu càccaxee ni yiw yu ndaw ndawaan yi koor nag bokku ci koor moom du ma leen wax ni ma koy fule ndax man maa koy fay moo tax mu ne ma ndare koor fay na oli war maa ko moom waa naa ci bii koy fay mel dañ ko ne waaw yow yàlla yu baax yi yëpp li nga ko fule koor nga ne doon wax ful ga ndax yaa koy fay kenn xamul nu mu doon ko xam mu ne li tax ma def ko mooy ki woor jamono ji muy woor bannee xam ak suuram ak naanam la bàyyi ngir man te mënoon naa nëbbutu lekk te kenn du ko xam mënoon naa nëbbutu naan te kenn du xam moo tax mu ne yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli day bàyyi bànnee xam lekkam ngir man wax jooju jeex yàlla continuer ne li saa far ataani aji woor dina am ñaari mbég loolu wax yonent bi la farxatun inda fitrihi wa farxatun inda liqaay rabbihi muslim ay wax buxaari waxoon na ba def muslim kurne di wax mu ne ku woor dina am ñaari mbég mbég mu njëkk mi da koy am ci jamono jum doge cekkeen moom fu ko glace gi wëree ak bisaab bi ak ñoom seen yooyu ak mburu ak ay may nees yooyu moom day bég day bëgg ba ba bay reetaan te lekkagu kon mbég moomu aji war da koy am wa farhatun inda liqaa'i rabbihi bu demee ba dajeg boroomam mu di ko fay itam dana am mbég mu tol na moom mbaa mu ko raw yàlla nag ne eh, yonent bi ne wala xulu wala wala xaluufu sa saa'imi maanaam soof googu nga xam ne moom la gémmañeg ko woor di soof noonu ndax ñàkk lekk geeg naan atyabu indallahi moo gën a teey fa yàlla min ri il miski ci xetu misk loolu même benn addis bi la waaye noonu la ko imam muslim nettalee dinaa ñu léegi nag ci ibni xusayma ba léegi ñu dellu ci pasinu ñeenteel ci même hadis bi lu tax addis bi ñu di ko wax di waxaat njariñ yi ci nekk moo tax ak ñi ko nettali ni mu baree ibnu xusayma moom it nettali na addis bi waaye nag waxul farxatan inda liqaa'i rabbihi moom dafa dafa wax ne wa isa laqiya llaaha azza wa jalla fa jazaahu fariha moom noonu la waxee addis bi moom ba mu eggee ca foofa dafa wax ne ndéem aji woor ji daje naag boroomam mu fay ko dana bég maanaam farxataani farxatun inda fitrihi xam nga wa farxatun inda liqaay rabbihi la wax moom la muslim wax buxaari buxaari wax na noonu waaye ibnu xusey moom dafa wax ne farhatun inda fitrihi wa iza laqiya allah azza wa jalla fa jasaau fariha moomu moom noonu la waxee hadis bi su dajee ak boroomam ëllëg su ko feyee dana dég kon jubluwaay yi mooy benn waaye tegtaleenu baat yi ñoo amuk waroo ibnu xuseyma nettali na ko wax waxee ko noonu malik nettali hadis boobu Abu Dawud nettali na ko Tirmasi nettali na ko Nisa'i nettali na ko xëy na nañu waxe seeni wax moo xaw a waroo ca tokkale tegtaleen te tegtaleen baat ya waaye jubluwaayu wax ja moom ñoo niroo nee na la Tirmasi nettali na ko Tarmasi nag nii la ko nettalee dafa wax ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna rabbakum yaqulu moom noonu la waxee addis bi inna rabbakum yaqulu kullu xasanatin bi ashri amsaliha ila sabu miati dafin wa sawmu lii wa ana ajsi bihi wa sawmu junnatun min annaar wala xaluufu fami saaimi atyabu inda allahi maril miski wa in jaila ala ahadikum jailun wa huwa saimun fal yaqul inni saimun saimun nga xool nettali tarmasi ni mu xaw a warooye ak yeneen nettali yi baat ya te jubluwaayu wax ja doon jenn tarmasi moom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi nee na seen boroom dina wax wala seen boroom a ngi wax li muy wax mooy bépp jëf ji yiw fukk ba lañ koy fay di ko ful di fulaat ba juróom ñaari téeméeri ful waaye koor nag yàllaa ko moom te moo koy fay koor pakk la ci safara day dox sa diggante ak dem safara te itam soof gi gémmén ak aji wor soof moo gën a tedd fa yàlla suñ boroom ci xitu misk kon bu nit réeree ba wax la nag sa dul noona ci weeru koor ne ko dama woor dama woor bu fekkee ne yaa ngi woor ne ko dama woor dama woor dama woor nettali tarmasi noonu la mu di inna rabbakum naka seen boroom yaqulu ma ngay wax ne kullu xasanatin bépp jëf bu rafet bi ashri am saaliha danaa ko fay ci fukkam yu na tollu ila sab'umiati dixfin ma di ko ful di ko ful di ko ful ba mu nekk juróom ñaari téeméeri yoon ci ful ga fukk laay jël benn laay jël ful ko fukk muy benn ful ma jël fukk ful ko téeméer muy ñaari ful ma jël téeméer ma jël téeméer ful ko fukk muy junni ma jël maanaam muy junni muy junni ma jël junni ful ko fukk muy fukk junni may ful nag noonu par benn ful di teg par ñaari ful di teg par ñaari ful di teg un fois dix égale dix dix fois dix égale cent cent fois dix égale mille mille fois dix égale deux mille deux mille fois dix égale waaw ma koy def noonu ba ba égal égal yi nekk juróom-ñaari téeméeri yoon par égal égal mooy sab umi ati di afin koor nag yàlla nee na du ko faye noonu mu ne wax saw mu lii wa ana aj si bii moom maa ko moom maa koy mu koy faye moo moo loolu mu ne wa saw mu junnatun mina naar koor pakka la ci sa diggante ak safara koor pakka la ci sa diggante ak safara dana tere dem safara wala xalufu fami saimi gémmañu aji woor noonu muy soofe at yabu indallahi min ri'il miski boo demee fa yàlla moo gën a neex xetu misk wa in jayla ala ahadikum jailun su réeree kenn ci yéen aji réere ba wax ko lu dul noona mbaa tàppas ko mbaa coqootu ko xuloo woowa te fekk mu woor fal yaqul ko wax ne inni saayimun inni saayimun man dama woor man dama woor noonu la ko tarmasi nettalee bu ma ñëwee suba ma waxal leen nan la ko ibnu ma nettalee addis bi nag jubluwaay yépp benn la waaye ni ni baati toftaloo rek moo xaw am ak waroo